mbokki déglukat yi ñu ngi leen di dalal ci rajo Takaful ci waxtaan bi ñu duppee ëttu jàmm ki leen kay defal di programme bi di jàppale askan wi ci wàllu koom mu tuddee ko Takaful ci waxtaan bi weesu xujja dem na xelal dëkkaaleem ndeela bi nga xamante ni doomam bu tuuti bi di nogay dafa ànd ak biir buy daw ndaxte dafa naanoon ndox bu setul xujja jàngal na ko nan lay defaree garabu biir buy daw benn liitaru ndox bu set def ci genn wàllu kuddu tubaab xorom ak juróom-ñetti kuddu tubaab suukar mu xelal ko mu jàppale doomam di ko jox muy lekk lekk yu mu bëgg xale bu feebar du sawar lekk waaye war naa lekk ngir mën a xeex feebar bi ko doon dëkk bi ñu tudde Ceenu fenn ci biir Mauritanie xujja ak njabootam ñoo fa nekk ñu nettali leen seen jaar-jaar. waaw nu koy nu mu def. yaakaar naa ndox mi ñu ko jox. segguñu ko ba pare reyuñu doomu jàngoro yi ci nekk. dafa ànd ak biir buy daw. rax ci dolli xiiboon na lool. yaakaar naa ni garab bii ma ko defaral mu koy naan dina ci am tan. maa ngi xalaat ni suba ndegam du ñu yóbbu mbay ci bérébu fajukaay bi ngir peese ko. wax nga dëgg. xalaat bu baax la def nga lu baax bi nga ma ko fàttalee ginnaaw ay fan xujja ak ma demb ñu ngi dem ci bérébu fajukaay bi ci ceenu yóbbu mbay ci yoon wi ñu daje faak Lamine meeru commune bi mu ngi waxtaan ak góor gi Birame déglu Lamine xawma nan laa la ko mën a waxee waaye mbir yi war nañu soppeeku nit ñi di jonkan fu leen neex loraange jural dëkk bi boo gisee sunu doom yi di feebar saa su nekk du neen bàyyiwuñu xel li ñu war ci wàllu set xoolal ni digg kër yi tilime yow yaa fi meer war nga ñaax nit ñi ñu soppi doxalin ngir njëriñu gox bi biraan teel nekkuma fi ngir tere nit ñi def lu leen neex ku nekk am na sañ sañ def li ko neex boo waxtaanee ak waa dëkk bi ñu taxaw toppatoo li ñu wër ñaax leen ñu tabax ay douche su boobaa wóor na ma ni ñu nit ñi di feebare si dëkk bi dina wàññeeku. asalaamaaleykum naka ngeen def jàmm ngeen yendoo. waaleykum salaam ñoo ngi fi naa def. ah ma Demba xujja bëgg naa bi ma leen gisee. war ngeen ma mën a jàppale. maa ngi doon fàttali Lamine tilim bi si dëkk bi. te bu góorgóorloo tuuti rek mbir yi soppeeku dañu faral di dajale mbalit bi fi nekk yóbbu ko si ginnaaw dëkk bi taal ko. dëgg la Birane am nga dëgg. dina baax trop bu nu mënee tabax ay douche yi ñëpp bokk ci biir dëkk bi. déglu leen ma yee ñaar bu leen ma tànqal ak seen waxi dof boo leen bëggee ñaax waa dëkk bi daf leen ko man dama am leneen lu may def. lii mënul nekk kii moo ñàkk gis-gis xamul dara. xamul loraange bu mën a jural sunu njaboot yi yaakaar naa ni kii dootul faluwaat su dul loolu dara du mos a soppeeku fi si dëkk bi. lii doy na waar su fekkee moom rek moo fi nekk maire. waa gox bi seen dund du mës a yéwén lu ma si gën a metti mooy amul keneen ku fi mën a xëccoo ak moom. yow Birane baax nga ñëpp la jox cër fii si dëkk bi lu tax ba doo falu. màgget naa ku ndaw la ñu soxla. Hmm, waaw kay nogay nu mu def. mu ngi tani bi ko xujje seetsee ba léegi mi ngi tane bu baax xelal bi mu ñu xelal am na njariñ lool. mbaa amul lool. déedéet xelal bi nga xelal ndee la muy naxante ak moom. di ko mooy muy lekk. tax na ba amul. mën naa ni léegi sax wér na ñu ngi lay sant bu baax. lii du dara. ba gis nga beneen maire bu mel ni sa jabar ji lañu soxla. boo ko nangoo bàyyi mu bokk ci jongante bi. ma dem ba war nañu dem balaa muy gën a guddi. yow biraan nga fàttali ne la ñam yi muy jox yi mu koy wutale ndax mu gaaw a tane ba beneen yoon. waaw waaw dinaa ko ko wax ba beneen yoon. waaw kon Birane ba beneen yoon. ba ñu yegg ci ci bërëbu fajukaay ba Duudu Fall di fajkatu gox bi dalal na ma Demba ak Xujje. asalaamaaleykum jàmm ngeen yendoo. maaleykum salaam. mbay nu mu def dafa mel ni mi ngi am wérgu yaram bu baax ay ca ñëwal nu peese la oh macha allah dafa mel ni mu ngi yokk juróom benn kilo yu tegal juróom-ñetti gramme si liiru at baax na trop bi ngeen koy mujjee peese ñaata la woon. juróom benn kilo yu tegal ñett. yokk na juróomi téeméeri gramme ci benn weer. baax na trop. kii mooy liir bu wér ceng. waaw dafay foo rek. waaw day teye sax ay jumtukaay yu ndaw. delloo ma sama kaye mbay. dam la ko ñaan. waaw kay jërëjëf. lii baax na trop. am na kàttan. te man-manam mi ngi yokk. xam ngeen njàngu liir mi ngi tegu ci seetlu ak géem. bu nu juddoo ba ba nuy am juróomi at xale yi dinañu jàng ay mbir yu bari yi nga xamante ni duñ koy jëfandikoo seen giiru dund dunay tàmbalee tey seen bopp mu jub teg ci dox teg ci daw bu yàggee nu bind dee leen ko jàppale mu yokk man-manam naka la ñuy def dee leen ko bàyyi muy foo saa su ne bu dee foo dafay jëfandikoo ay jumtukaay yu tuuti loolu dey yokk man-manam man de bari na lu may foo ak sama doom lu dëgg xujja waaw dëgg la bu sa doom màggee dinañu ko mën a may ay crayon ay kaye ngir mu mën a bind bind lu boole mën-mën ak kàttan bind day yokk si nu mu gën a gaawee mën-mënu loxo bi nga xamante ni am na solo si lépp lu muy def dëgg la xale bu dee tàmbalee def dara day géem bu yàggee mu man si boobaa dina mën a téye si ay loxoom ay jumtukaay yu tuuti di leen foowe ngir mu mën a jëfandikoo ay loxoom bu baax dara gënul bind xuja xam nga yenn mbir yu bare maa ngi lay delloo njukkal fan yee weesu daje na ak ndeela mu ni ma xelal nga ko bu baax bu doomam bu ndaw bi nogay feebaree ma demba sa jabar ji amal na waa gox bi njariñ lool waaw waaw loolu yëg naa ko bu leen fàtte dellu si ngir mu ñàkkuwaat waaw waaw dinañu ko indi ba beneen yoon ba waaw kon ba beneen yoon incha allah ba ñuy ñibbi ma demba mu ngi xalaat xalaat yu bari lu xew ma demba waxoo dara bi ñu jógee ci bërëbu fajukaay ba ba léegi danga ma mere déglu ma xujjo xalaat naa bu baax waaye yaakaar naa ni biraan am na dëgg waaw dëgg la ku ne war na jël matukaayam ngir dëkk bi mën a set déedéet xujja te war ngaa mën a xëccoog Lamine ci jongante maire yi nu dëkk ma nit yi wóolu nan la sa xalaat rafet na wóor na ma ni dinañu la déglu te mën ngaa soppi lu bari ci dëkk bi yaakaar nga ko li ko waral moo di ni dama fekkee ay waxtaan yu bari jàng si itam lu bari kon naqareetu la ngir ma bokk ci jongante meer yi déedéet yaakaar naa ni am na solo dinaa la jàppale sama kéemte lay kàttan dinaa faral des kër gi si xale yi loolu rekk la woon su fekkente ni yaakaar nga ko man dinaa si xalaat mbokki déglukat yi dinañu dikkaat ak yéen ci jaar-jaaru xujja ak njabootam ci waxtaan bi di ñëw ñu duppee ko ëttu jàmm ngeen mën ko déglu ci rajo Takaful nekk leen ci jàmm.